suñu problème mu bi jooytu nañ ko fu nekk xam nga ni gis nga problème yi fi am centre de santé Mbacké fa jigéen ñi di muccee équipement bi ñu war a am ba léegi amuñu ko kon man waxuma pour suma tur Bara Gaye parce que man yàlla dimbale na ma fonctionnaire la tey jii bu Macky jeexaloon tamit bu weer wi dee damay dem ci gab bi ci banque bi ñu jox ma sama tur ma jënd ceeb ak diw yóbbu sama kër kon su may wax Mbacké moo tax may war ak département Mbacké et dafa jot nag maintenant que ñu am des assises nationales mais surtout pour Mbacké waaw parce que exécution programme yi gouvernement bi dafa des jii lii uh-huh. dama ne la Abdou Khadre ce que jaadu na tey département Mbacké ak poids politique bi mu am ak influence religieuse bi ñu am ak Touba ak en terme économie li ñu apporté gouvernement Sénégal à travers màggal gi ak yeneen tey ci position de décision ci état Mbacké amuñu benn poste de décision ci gouvernement bi as direction yu ndaw nationale lañ am su ndaw. amuñu ministre amuñu direction nationale bu sérieuse mais loolu mooy des te état pour nga mën ci liggéey il faut que doomi département bi également toog fa ñuy dogalee dafa jot département Mbacké am un ministre de la République plein am ay direction générale am ay PCA am ay fonction politique yoo xam ne personnel politique ñooy porter les doléances sociales d'un département ñun Mbàkke loolu la ñu amul ak Touba loolu mooy dëgg gi Abdourahmane Abdou Abdou Khad et man loolu laay wax et je l'ai dit plusieurs fois te ba ma ko njëkkee porté jàpp naa boobu région Diourbel yëpp amuñu woon ministre après bi ñu defaatee recasement yàlla dimbali ñu maintenant on a un ministre mon frère Dame Diop de Diourbel que je salue muy def ay efforts yu am solo pour région bi waaye dafa jot tamit man su ma sañoon su ma département Mbacké ah président Macky Sall gestuñu nag parce que nag dafa jot te on a les compétences on a l'engagement te suñu poids politique ak économique tamit daf ñu ko jox dayoo Mbàkke dafa am tradition te suñu baay yi ñu jiitu woon Samba Yalla Diop Duudu euh, Duudu Thiam Moustapha euh, Samba Yalla Diop euh, Amadou Ka ba ci suñu grand bi ñu mujj ñàkk Ibrahima Gueye mas ngaa dégg ñu formé ak gouvernement te département Mbàkke bokku ci mas ngaa dégg ñu formé biso bureau assemblée nationale te département Mbàkke bokku ci ñu joxe ay direction nationale te département Mbacké bokk ci mësul am jàpp naa ne président de tamit ñun ci turu département Mbacké loolu ay doléance la yu ñuy teg sur la table dafa jot ñu gestuñu parce que dañ ko mérito lu lu ñu réclamé mais dañ ko mérito. Euh, est-ce que président Macky na leen bi mu amee deuxième mandat ak léegi. déedéet dama ne la 2012 ba léegi président Macky Sall dalal a gudd les responsables du département de Mbacké pour ñu waxtaan sur les situations sur les problèmes politiques économique et sociaux du du dama ngi recevoir yeneen gox yi. ah loolu laa loolu kay mooy sama jooytu man man kay loolu man wax naa ko fu nekk bind naa ko yëgal naa ko fu nekk teewul nag tey laa gën a gëm Macky Sall tey laa gën a bëgg Macky Sall réussir waaye nag dafa jot tamit jàpp naa ñu gestu département Mbacké.